et réforme yi ñu war a def pour xoolaat càmbaraat suñu code pénal pour mu méngoo ak ak ak yelleefu doomu aadama defaguñ ko ba léegi y a toujours des réformettes notre code pénal doit être refondu de fond en comble et ñu mettre au centre de ces réformes le respect des droits humains regarde le code pénal c'est 436 articles mu am 50 articles yu nekk ci code pénal de cinquante cinq à cent deux cent cinquante cinq muy cinquante articles quasiment un quart du code pénal c'est laissé à l'appréciation du procureur de la République maître des poursuites nga xam ne moom mooy aji kiy topp procureur mooy njàppaan mooy jàppkat bi yoon na ko ko jox ci juróom fukki articles yi un quart benn bu mu ci tànn ou lu ko ëpp sur la base de 139 du code de procédure pénale s'il y a des réquisitions dûment motivées bu ko sàkkoo ci justice ñu tëj mais disposition yooyu la ñu utiliser ce régime dérogatoire ces textes sont liberticides sont contraires mm aux droits humains yu ci bëri ci textes yooyu entre cinq cent et deux cent cinquante dafa war a jóge amatu fi place mm-hmm. ay diffusion de fausses nouvelles il y a des sur la diffamation lan la fi diffusion de fausses nouvelles yi def mm-hmm. atteinte à offense au chef de l'État xeetu infraction yoo xam ne dafa. xeetu dëkk yu bëri supprimé nañ ko dépassé dans toutes les grandes démocraties et nous on prétend être une grande démocratie te ba léegi inflation moo tax moi je dis toujours nous sommes une démocratie en maturation dans une grande démocratie. Mhm. du ñu jàpp nit pour avoir exprimé sa liberté d'opinion et d'expression du ñu jàpp un journaliste parce que dafa def liggéeyam. dans une grande démocratie duñ tere citoyen yi marche nous sommes dans une démocratie en maturation mhm. te suñu démocratie war nañ ko xoolaat gën ko liggéey pour travailler à l'émergence encore une fois d'une société démocratique mhm. d'une culture démocratique on ne peut pas bâtir une démocratie sans des démocrates on ne peut pas bâtir une démocratie sans une culture démocratique mhm. donc texte yooyu fi nekk mu nekk ay texte liberticide nga xam ne moom la ñuy prétexte ci la ñuy ngoy pour jàpp citoyen boo demee ñu topp la ci benn ci article yooyu procureur parquet def ay réquisition bateau des faits graves risque de réitération éventuelle collision défaut de représentation subornation de témoin non ñu ne nañ la placer sous mandat de dépôt alors que le texte 139 dit des réquisitions dûment motivées mooy loo xam ne dafa am cëslaay mais mënoo jël des clauses de style des généralités ne motivation la pour l'essentiel, les réquisitions n'ont jamais été motivées. Il y a une insuffisance de motifs mhm. ou de motivation. Et l'insuffisance de motivation en droit équivaut à une absence de motivation. Et souvent, certains juges d'instruction ont refusé d'exercer le contrôle à minima pour xool ndax le parquet a dûment motivé pour xool ndax dafa war a placer systématiquement donc à la limite on a une interprétation liberticide de l'article 139. Et à la limite, on a même l'impression que les juges d'instruction, dans l'interprétation ni ñu gisee 139 du code de procédure pénale, sont des auxiliaires du parquet, alors qu'il y a de la séparation des fonctions de poursuite et des fonctions d'instruction. Les juges d'instruction sont des magistrats du siège, mmh. des droits des libertés des citoyens. Donc, bu parquet jëlee réquisition ne dafa bëgg a tëj nit même s'il n'a pas une appréciation souveraine une pleine appréciation mais il y a un contrôle à minima pour vérifier est-ce que les réquisitions sont dûment motivées et pour l'essentiel beaucoup de réquisitions n'ont pas été dûment motivées dire qu'un fait est très grave c'est pas une motivation c'est une insuffisance de motivation dire qu'il y a un risque de réitération n'est pas une motivation pertinente c'est une motivation qu'un inspecteur de ceci ou de cela n'a pas de garde de représentation même c'est grotesque et on a vu cela revenir ça c'est pas une motivation quand on motive <coughs> les motivations encore une fois Pape mmh, c'est les raisons de droit et de fait sur le fondement duquel le parquet requiert le mandat de dépôt et le parquet ne le fait pas mm-hmm. lii yëpp dinañ ko dépassé léegi vague bi yëpp ngelaw lii yëpp léegi mu romb ngelaw dëtum pri léegi mu romb léegi rek même bu ñu ko dépassé il faut supprimer il faut mm-hmm. réformer mm-hmm. il faut supprimer l'article il y des dispositions du code de procédure pénale article à 102 ñu war a supprimer ces dispositions liberticides mm-hmm. le retour de parquet dañ ko war a réglementer durant ces événements il y a certaines personnes qui ont fait l'objet d'un retour de parquet c'est inadmissible c'est une détention arbitraire loolu yëpp dañu ko war a régler il faut motiver il faut il faut réformer notre code pénal de fond en comble et surtout instaurer un juge des libertés lan mooy njëriñam et de la détention lan mooy mais day tax procureur de la république du nekk buur di bumi mhm. je te dis que procureur de la république mënul ñàkk pouvoir mais pouvoir yi mu am dafa jéggi dayoo dafa am des pouvoirs exorbitants et parfois on voit même des abus de qualification mu ne diw lii la laa la tuumal te xam na xel ne lim la tuumal amul. donc li ñu bëgg mooy pour que ñu mën a rééquilibrer notre système judiciaire mooy ñu recalibrer les pouvoirs du parquet en créant un juge de liberté d'intention li ñu nekk euh, rôle waree wareefam mooy lan procureur fam mooy topp ku def ñaawteef jàpp ko. Mhm. mais procureur warul décerner dans un état de droit qui se respecte un mandat de dépôt loolu du wareefam. Mhm. on peut pas juge et parti waru mooy topp nit ku mu yaakaar ne dafa def ñaawteef mu jàpp ko jébbal ko ñu ñëw ci devant le juge des libertés et de la détention procureur ne man damay sàkk ñu placé ko su mandat de kooku ak ay avocat ne ñun d'accorduñ ci ndax nanga man kooku mu nekk un juge du siège libre apprécié ndax dafa koy placé mandat de dépôt yu na ça c'est nécessaire mais depuis depuis plus de dix ans ce débat est agité ministre la justice bu ñëw fekk ko fi bàyyi ko fi parce qu'en réalité bëgguñu wàññi doole procureur parce que procureur moo dépend de la chancellerie amuñ ci intérêt mhm. mais loolu mënul ñàkk pour que suñu justice mën a gën a dëgër ñu renforcer notre système judiciaire gën ko teg ci yoon mhm. il faut mu am juge des libertés et la détention. d'accord kooku c'est une urgence c'est une mhm. nécessité absolue d'accord alors euh, maître du ñu yëkkati jotaay te waxuñ ci présidentielle 2024 ndaxte am na ci ay aspects yoo xamante ne dafa laal concerné wàllum justice euh, naka nga jàngatee dogal bi nga xamante ne conseil constitutionnel euh, génnee na ko di neenal wala book di annuler report bi nga xamante ne euh, jëloon nañ dogal reporté ko élection yóbbu ko ba 15 décembre ba nga ko gisee en tant que juriste avocat praticien du droit acteur de la justice naka nga ko gisee. bon dañ koy rafet xam nga lu tax aujourd'hui il y a un revirement jurisprudentiel boo ko seetloo. Mm-hmm. conseil constitutionnel li ñu ko xamee woon. mooy se déclare incompétent à chaque fois bu ñu ko déféré woon une loi constitutionnelle danaan toujours ma ko apprécier je suis incompétent mais cette fois-ci déféré nañ ko une loi constitutionnelle mm-hmm. mu jël responsabilité surtout fu réew mi toll ak sañ-sañam pour déclarer ko contraire à la constitution te man dama gëm ne c'est contraire à la constitution kon dañ koy rafetlu mieux vaut tard que jamais aujourd'hui j'estime que le conseil à la des enjeux et des attentes du peuple sénégalais ñu koy rafetlu. Mhm. ok donc rafetlu duñ dogal boobu. maintenant la légitime. maintenant il pouvait aller plus en avant. Après. Ah. là où ils disent. il Mais... faut qu'on organise des élections dans les meilleurs délais moi j'aurais préféré que le conseil constitutionnel établir un calendrier électoral. fixer date élection bi fixer date élection yi. Mhm. xool li mën a nekk ni mu constaté. qu'il est impossible te muy dëgg que mënuñu voter le 25. il pouvait parce que ci la ci ay prérogatives am la. pour la sauvegarde de la paix pour la sauvegarde de la stabilité mënoon na élaborer un calendrier électoral. maintenant le débat réaliste. Mm réalisable. et à partir de ce moment là danañu defaloon économie bi di xaar débat ban mooy la prochaine date et cetera mënoon na ko def. mais du tere aussi on s'en félicite. Mhm. ci dogal bi. et dogal bi ça va en droite ligne. C'est la conséquence de l'avis que le conseil avait déjà donné lorsque le chef de l'État les avait interrogés. Est-ce qu'il pouvait réduire son mandat? Ils avaient dit dans le considérant 32 que pour des questions de sécurité juridique mm-hmm. et de stabilité des institutions, on ne pouvait ni réduire ni proroger le délai du mandat Donc cette décision n'est la conséquence mm-hmm. logique de cet avis. Mais du tere ñu rafetlu ko. d'accord alors le débat sur la légalité ou la légitimité du président de la République au-delà du avril lan nga ci xam parce que fi ñu toll nii euh, diggante bi parce que ñu bëri ñi ngi proposer ay dates ñi naan le 15 mars ñi naan le 10 mars ñi naan le 3 mars ak yu mel ñi naan le 2 bu xasee ba jàll rek président amatul légalité légalatul amatul légitimité ndax noonu nga ko gisee. Euh, ok man loolu du suma gis-gis son mandat se termine le 2. Mhm. mais s'il n'y a pas élection l'article de la Constitution dit le président de la République reste. en service, en exercice, jusqu'à l'arrivée du président nouvellement élu. Si le président n'est pas encore élu, c'est normal que durant cette période, qu'il soit là. kon même le bu jàllee day day am légitimité pour toogaat ci réew mi. bu amul légitimité légitimité c'est autre chose. Mm -hmm. mais légalement. Mm -hmm. en attendant que président ñëw bu bees mais moo fi nekk lan moo fi nekk c'est ça ma conception moi. loolu mooy suma compréhension. de l' article de la constitution bi ne le président reste en exercice ba président bu bees bi ñëw mais bu président bu bees bi ñëwul te moom élection ku fi nekk moo fi war a nekk. dans une direction en droit administratif on le voit. Mm -hmm. c' est vrai que le droit administratif n' est pas le droit constitutionnel comparaison n' est pas raison mais bu ñu la nommé à un mandat bien déterminé su mandat bi jeexee en attendant ngay ñëw tu es là pour expédier les affaires courantes. Mm-hmm. le même principe te élection jotul. daf fi nekk gum négandikoo gum ki ñu war a fal. am na ñu wax ne dafa war a démissionné am na ñu ne dafa war a démissionné dans ce cas. non man gisewu ma noonu. d' man gisewu ma noonu c' est pas ma lecture moom. Mm-hmm. je respecte gis-gis mais man gisewu ma noonu li gis mooy article 36 li mu wax c' est clair. Mm-hmm. mooy président de la république nekk en exercice ba ki ñu fal ñëw. kon durant cette phase transitoire moom moo fi nekk en attendant pour expédier les affaires courantes. ndax jàppar nga ni pour dem ci élection dafa war a am un nouvel appel à candidature wala dañuy reconduire rek li fi jotoon nekk. non nekk conseil constitutionnel war li mu wax donc que bi objectif u dialogue bi c' était pour que candidats yi ñu éliminé woon ñu may leen deuxième chance ñu mën a bokkaat ci waxtaan bi. ku ci mel ni Karim Wade ku ci mel ni Ousmane Sonko ak yooyu noonu. man Pape nekkuma ci affaire dialogue dialogue bi xaw ma ci lenn. Ah, moo tax ñu bàyyi sa ma ci lenn. Uh-huh. maa ngi dégg dialogue ak concertation li ma Mm -hmm. C'est tout à fait normal que lorsqu'on est dans une situation euh, assez confuse, exceptionnelle que nous vivons, que le chef de l'État bi fi nekk gu discuter pour ñu trouver la meilleure solution de sorte de crise loolu dama koy rafetlu mënoo def mënoo nekk dans une démocratie te doo concerté wu mm-hmm. concertation ak démocratie ñoo ànd même bu dul sax cette situation politique confuse même dans le fonctionnement normal de la nation sur certaines questions d'une extrême importance njiitu réew mi dafa war a discuter weeslante xalaatam ak ñeneen ñi nekk ci kujje gi ak ñeneen citoyen yoo xam ne seen xel rafet na pour xool fi réew mi war a taxaw à partir de ce moment là c' est normal maintenant le conseil constitutionnel réglé na la question. Mhm. dafa ne nañu continuer processus. processus kon donc vingt candidats yi fi nekk.

sanctionné na illégalité bi. ne nañ ko wéyalaat. kon nañu continuer ak candidat yi fi nekk. man naa nag peut-être njiitu réew mi mu ngi concerté wu di waxtaan ak ñii mu jàpp ne war na waxtaan ak ñoom pour ñu xool date pour ñu dem ci élection pour réew mi ne ci jàmm. askan wi reprendre sa souveraineté tànn ki ko neex mu fal ko. ndax xalaat nga un jour def politique ambition politique. pour le moment c'est pas mon ma passion d'avocat doy na ma. sëkk comme activité. politique bi yoon bu gaaw la de te neex na it de. Euh, mais sant yàlla euh, li ma nekk métti na mais neex na li ma nekk. moo la ko leneen lu mënti am. Mhm. Euh, li ma nekk moom dara gënu ko. waxuma ne ëllëg duma def lii ou du ma def leneen loolu xaw ma ëllëg xaw ma li ma xam daal je suis bien. Mhm. en étant avocat je suis